major nga de gendarmerie à la retraite nekk tamit consultant expert en investigation maanaam saytu ci wàllum ay l'enquête yoo xam ne daan nga ko yor nga nekk ci koo xam ne xelam ci la màcc déglu nga sorti bu procureur de la république sànq euh, ci li nga xamee ne moom mooy mbirum rebelle yi ñu jàpp ci manifestation bu juin bi ñu weesu ci Yewwi Askan Wi ban njàngat nga ciy am bon njàngat nga ci am c'est très simple on félicite d'abord la gendarmerie nationale qui a surveiller déplacement de parce que ay rébellion algorithme la dañuy algorithme dañuy communiquer dañuy jot ay instruction ñu ay mission et dañuy déplacé wu. Euh, li ñu bëgg a xamal population bi mu gaaw mooy li procureur wax dafa benn partie bi mooy dafa répété tout simplement li investigation yi gendarmerie def mooy fee yi nga xam ne moo moo amoon na gendarmerie bañ jàppul rebelles yooyu yëpp ba xam leen fi nekk kenn ku nekk. bu ci topp nag principe de droit la. ndax rébellion insurrection en vue de commettre des crimes dans le temps dans l'espace crime la donc tout affilié et tout assimilé moom ngeen di wax ay co-auteur en matière de ak euh, complice mais dañ lay téye xam nga aussi le problème de la rébellion en Casamance mënuñu toog ba heure bi du koy combattre mu mu biaise suñu économie insécurité bi am Casamance ñu rey ci ay centaines de personnes voire des milliers état di ko di ko xeex ba heure bii ñoom ñuy bëgg a profité ci ay événement yoo xam ne kenn yoon waru ci woon nekk xaw ma ban intérêt lañ ci am ak ban sentiment lañ ci am ñu algorithme ñoom daw di dugg ci Dakar pour yàq Dakar. est-ce que am na lien diggante manifestation yi ak. Euh, MMDC non kooku kooku tout tout. kenn rek lañ jàpp n'est-ce pas. non non non tout acte criminel. day chercher une occasion. personne ne dit qu'ils sont à la manifestation ni affiliés à parti politique. gaa kenn tudd ko fi procureur tudd ko keneen tudd ko mais criminel bu nekk boo bëggee def délit wala nga bëgg sàcc il faut nga seet les moments favorables les manifestations sont des moments favorables pour faire des des crimes et des mais en effet même même les manifestations ont lieu da ne force de sécurité dañu concentré Dakar mais à l'intérieur du pays on a vu que y des des vols de vols il cinq magasins qui ils ont fait de choses à l'intérieur du pays parce que les forces de sécurité étaient en renfort mais bref rébellion bi dañ ci xam lu leer xam ko man dama ci rébellion dama ko gérer huit ans leen dix ans en quatre dama doon gérer tout le dossier MFDC à la GT la gendarmerie nationale a eu toutes les informations dañoo xam nit ñi benn par benn ñuy retraité ñoo gën a xam sax ñi fi nekk rébel ñi ñu nekk rébellion ñoo ñuy wax ñooñu ñëpp gars yi jàpp leen dañ xam benn par benn dañ leen di xam gendarmerie daf leen xam daf leen yàgg siiw maintenant nag ak outils yu xara ñi ñor léegi yow benn numéro ñoom ci chef boo ko amee vraiment tu vois le tu fais le diagramme da ngay gis ni ñuy déplacé wu da ngay xam dugg mais comment tu peux euh, un responsable de gendarmerie wala de police mais y a la sécurité militaire en Casamance boo xam ne moo gën a garaaw renseignement gendarmerie ak police mais mais quand il voit dans le diagramme gis dans la surveillance nga gis benn nit jékki-jékki di ko recherche ci rébellion bi mooy mu woo cent personnes nga gis dans les diagrammes et dans les cartes nga électronique nga gis ces personnes algorithme wu jël jëm gàtt nga gis leen ñu mais da nga xam ne ñuy def am na lu ñu fay defi da nga leen di jàpp. procureur na ay moyens yu am solo yoo xam ne gendarmerie ak service de renseignement génne nañ ko ngir mën a teg loxo. ci say pexe parce que yow jiite woon nga section de recherche ay jamono. Euh, bokk nga ci ñuy daaneel également gang bi fi doon euh, lëmbee ci année 90 yi mooy Alex ak Ino euh, càmbar yu mel nii investigation yu mel nii ci naka lañ koy tegee. mais dañu am moyen dañ léegi dañ jàng investigation criminelle dañ jàng dafa am surveillance am recherche am observation. observation bi ak surveillance dafay am mobile comme statistique mooy mooy li ngay dégg ñu naan ay filature. on a plus que ça on a les écoutes téléphoniques on a les balayages on peut balayer quelqu'un à cinquante mètres de de de de de de rayon. di dégg li ngay wax donc il faut pas que sénégalais yi di dugg di utiliser seen bopp et di insécuriser seen bopp par ay sentiments yoo xam ne c'est gratuit affaire rébellion la ñuy wax ku ci laal dañ lay jàpp ni ko procureur waxee. les moyens là nous les nous les avons les écoutes téléphoniques on a la Sénégal am na capacité bi surveillance yi mën nañ ko observation yi mën nañ ko mën nañ leen di filer guddi ak bëccëg et puis nous avons des organes renseignement yu fi nekk yu bari yu dul jeex police am na ko gendarmerie am ko armée am ko am bu nekk niveau national fii koo xam ne tu compromets la sécurité am na DRN am tout et c'est des gens qualifiés qu'on a bien formés et on fait de l'analyse criminelle on et les transitifs ak yooyu mais mais monsieur looloo tax ñuy jàng mathématique te mathématique laa wax ci emprunté dans la gestion des affaires bu ñu yaakaar ne fii dañ ciy def ay fala fala dañuy bàyyi nit ñi leen neex di dugg fu leen neex def leen neex ça il faut que les Sénégalais se trompent gis nga buñ dara ay terroriste ay rébellion ay rebelle et la rébellion actuellement boo xam ne day insécuriser réew di insécuriser ay nit ay terroriste lañ ñoo raw terroriste yi seen algorithme boobu dañ leen a di leen xool benn par benn di leen écouter di leen ba xam li ñuy def xam duñ ko jëmee bañ jàppale un bon sénégalais waru sax commenter le contraire nit ku normal ba ñooñu jóguñu fi pour sàmm suñ taraxa yi de au contraire les détruire quand ils auront l'opportunité ñooñu ñëwuñu fi pour sàmm euh, suñu suñu euh, église bi non ñooñu sabotage moo leen fi indi woon. Mhm. te bu ñu amoon doole wala ñu yàq fi dara dañuy rocceeku demaat seen yoon. léegi mais li nga am sa mhm. avance bi nañ ko. Mhm. on teste tout le monde fekk ñooñu. c' est pas un euh, sénégalais lambda wala ordinaire moo koy def. léegi nooy jàngatee le fait que mbir mel ni lu xaw a yéex laataa ñu leen di teg loxo. est ce que pour yow y' a pas une faillite quelque part. des services de renseignement. bu algorithme du ñëwandoo même entre. non non non y' pas de faille. parce que c'est le point de convergence bu am importance affaire délinquance association de base. mais est-ce que yéexul lañ bëgg a wax. non bàyyi ba ñëw au niveau de Dakar. non non non mënoo leen jàpp est la base au niveau de Ziguinchor wala ci àll ba. non nekk. li leen permettre mu ñu nekk. mooy quand ils traversent les les de planimétrie et de nivellement. monsieur il faut pas que nit ñi conscience di def ay xel xam nga ce que le nivellement et la planimétrie. xam foofu ngay xam gis nga bu waay bu ñu jógee doo Casamance ñu ñëw fii dañuy tasaaroo ñuy jóge boori Kolda ñuy jóge aussi ñuy jóge boori Bignona ñuy jóge Kafountine ñuy jóge Diouloulou ñuy jóge fu ne ci àll bi am ñu nekkoon Dakar léegi nag au vu de leur appel téléphonique yi ñuy def ñoom ak seen communication yi ça va vaciller ça va ci foofu ngay gis ne algorithme yi daje mais mënoo tëb rek parce que am na zone yoo xam ne boo ko doon identifié ci forêt tu vois que il est la le foyer de de wala la forêt de wala forêt de mbaaw mais exactement le point doo ko mën xam ni koy mën a xamee quand ils traversent des ponts ils prennent des routes foofu ngay gisee ni ñi nga algorithmé wu il faut mu nekk des zones qui sont urbanisées donc y' a de retard il fallait les laisser se rassembler et les prendre ce que les gendarmes et les policiers ont fait c'est dit c'est un excellent travail on les supporte et on met un dispositif de veille nous dans un état de droit la ñu monsieur amul kii que ce soit li ko procureur waxee kuñ fiy bàyyi gis nga li gars di jéem ak di ko wax ni le jour ku ñu tudd ci keneen nit wala kuñ ci mën a tudd du ni jaar dana la jàpp wala état dana la jàpp ci téye la parce que aussi rébellion Casamance ba muy am du tey man je suis allé en Casamance en 11 novembre 1982 mais imaginez 82 ba tey ñaata la c'est 40 ans monsieur ñii di def lu ne def nañ ko rey nañ ku ne attaqué nañ ku ne def nañ lu bon lu ne booba taa ñi fiy wax sax kenn am nañ si la ñii ñun ñoo xam seen capacité de nuisance yéen xamu leen ko bala ngeen koy xam day fekk yéen a ngi ci morgue ñu koy xam ëllëg ñu fekk ne ñu ngi di congelé. mais est-ce que mën nañ jàpp ne actuellement comme procureur def na sortie la menace elle est circonscrite maanaam fexe nañ ba dootuñ mën a def li nga xam ne mooy njombe mais c'est la menace est circonscrite la gendarmerie a un dispositif de veille euh, les, les, les, surveillances continues. Les autres sont recherchés, les numéros de téléphone sont obtenus. Mais il y, a des autres points, il y a d'autres sources qui vont les suivre. di leen xool di def ay environnement di xool suñu dugub si jël pour ñu leen di jàpp ba jeex parce que rebelle mais mais quand ils ont quitté là mais dañoo infiltré wu dans les zones urbaines et périurbaines mais péri urbaines yi lañ dugg. ci et euh, boobu lañ parce que. xam nga le le le genre des rebelles il appelle le colonel le colonel appelle le capitaine le capitaine mais tu sais les jacaraam mais da nga leen di gis di leen positionné ñoom ñëpp ngay mujj numéro vous vous savez bien que Sonatel day joxe les appels entrants et sortants leen vous savez pas ça mm-hmm. Ah? Mm-hmm. si vous les mettez dans un produit artésien. mais vous allez voir la liaison mettez ça dans un produit artésien. nous avons appris les maths là. Mettez ça dans un produit artificiel, mettez les, les numéros de, de, ce côté, mettez les autres les numéros de l'autre côté, et vous verrez les cages de convergence. C'est qu'on appelle le produit artificiel. Mm -hmm. tout, tout, a été appris, les gens ont fait la section de recherche, mais euh, monsieur, on a, on a même les petits grades là-bas, ils ont le bac plus pour nous gradés à ça. Les officiers sont là-bas, c'est des doctorats. Ils les forment, ils ont une école, ñun ñi nga xam ne suñu époque man ñun 77 lañ ñëwoon ñun on nous a formés jusqu'à ce qu'on soit des experts et des DE presque au PJ on a fait toutes les branches pour takk ñooñu ça ne nous coûte même pas 30 minutes monsieur nous sommes dans un état où les forces de sécurité font leur travail réew la ñuy sécuriser on n'est pas des sentiments ni ko procureur di waxee noonu lañ koy appliquer kuñ ci jàpp ça coûtera ce que ça va coûter mais est-ce que ay jafe-jafe ci wàllum sécurité non mais si pour compromettre la sécurité intérieure du pays, euh, tuer certaines personnes, détruire les biens, compromettre les institutions étatiques. Il n'est pas question qu'on ait d'autres considérations. Voilà, comme nous disons Casamance, quel n'est que de condamner parce que donc on indexé. Il faut qu'on se respecte et qu'on respecte les institutions étatiques. ñu mënuñu nekk ci réew moo xam ne yow bu nekkee de l'autre côté wala nga nekk loolu neexul kuñ condamné nga ne ay labaj la ay complot ça ne passe pas condamne les fauteurs sans état d'âme est-ce que amoo tamit ci interdiction maanaam tere bi préfet tere manifestation bu aljuma est-ce que jàppoo ne euh, xëy na peut-être mun na indi li nga xam ne mooy coowoo xam nga coow bi lu koy évial c'est très simple ku nekk yaa xool sa intérêt le gouverneur et le préfet c'est des autorités administratives le maintien de l'ordre, le rétablissement de l'ordre euh, et le service de la compétence des gouverneurs, des préfets et des sous-préfets de l'Intérieur. Ce n'est pas de la compétence d'un ministre, autre, outre que le ministre de l'Intérieur et ses Le président le n'a aucune voix. Il ne peut pas donner une question générale, ni particulière, ni spéciale. Le gouverneur de Dakar, il suppose qu'il y avait des manifestations la semaine passée qui avaient entravé la circulation, les activités économiques que c'est abusif ñu que que ñu defaat beneen événement mu impacté waat le déplacement paralyser le pays mais il faut dire on ne fait pas la manifestation ici parce qu'il a des risques Parce que aussi quand on dit qu'il est libre de manifester, mais la, la, la manifestation ne peut pas être permanente, durable dans le temps et dans l'espace. Mhm. parce que nekk ci pays boo xam ne nit ñi dañoo activité réew mi dafa war a dox nit ñi war dañu war a dem ba ñëw dem ak ñëw réew mënuñu bët bu set koy aussi des manifestations guddeeg bëccëg loolu loolu dégg politique c'est-à-dire finalement sax on se demande mais c'est est-ce que la politique en fin de compte est-ce que du du facteur de sous-développement et facteur de dégradation euh, des des libertés même individuelles qu'il casse mais finalement dégradation liberté individuelle la parce que réew moo xam ne nous sommes tiers-mondistes tout le monde a des problèmes mais monsieur ngay xool laaw rek il faut les diriger chaque fois ñu ñëw mais finalement amul sens parce que bu dee yow léegi réew moomu réew bi ñu nekk Sénégal léegi ay conseil constitutionnel valable benn juridiction valable le gendarme wala commissaire bu nekk OPJ on en fait fiche et prononcé mais monsieur y' a problème et le gouverneur de Dakar moi moi je pense qu'il a raison finalement parce que mënoo réew nga jàpp chaque jour l' économie les gens ont peur les les déposent dans les banques pour faire des transactions internationales duñ ko def. les gens qui doivent venir dans ce pays disent que ce pays là chaque jour ñu yoo xam ne réew dañ koy xool xam nga quand gouverneur gouvernes rien du tout lu la neex mën nga ko permettre doo def yooyu calcul il calcule pas que les investisseurs doivent venir na déplacer wu les malades doivent aller à l'hôpital les commerçants doivent vendre le soir quelque chose ils doivent déporter des conteneurs ils déportent pas le conteneur hmm. mais mais écoutez le gouverneur il juge que il ne peut pas manifester force reste à la loi il manifeste pas jërëjëf major Kandji Alioune Kandji consultant Euh, nekkoon major ci gendarmerie nekk tamit expert en investigation ñoo ngi lay gërëm bu baax a baax di la sant.